والقلم وما يسطرون këru liggéeyukaay bi di C3S compagnie Serigne Seck Sénégal moo ñëwaat ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi muy amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñetteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu toll ak xët ci alxuraan bind sa tur ak sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci barabu c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala nga yóbbu ko fépp foo xam ne raabita bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi am na fa wala fédération bi ëmb daaray alxuraan yi wala nga yónnee ko ci site bi di 3W beral mbind point sn li bees ci édition ren bi mooy jigéen ñi dañu leen di beral seen concours bopp ngir mën a tànn ki daq bind ci ñoom ak tamit jongante bi ñuy amal ci région de Matam ngir doore fa jongante yi ñu namm amal ci gox yi at yi di ñëw dépôt candidature yi dina door benn fan ci weeru janvier 2020 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru janvier 2020 ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci